tëdd ci ngor ma nga fa tëdd ci patriotisme moo nga fa tëdd ci te xam ni li mu doon xeexal tey bu ko ci yàlla jëloon bakkanam shahid lay doon shahid nag mooy martyr loolu nekk lu am solo loo xamante ni eh, dañ koy ñaanal yàlla balaa muy yàgg comme ni ko Cheikh eh, Baara di waxe ak eh, sëñ bi yàlla na dellu siwaat ci ñun ñëpp ñu ànd continuer ba incha allahu la 24 ndam li yàlla boole ñu ko ñu soppi Sénégal ci ndimbalal yàlla incha allah ñu ngi leen di massawu tamit di leen wax na leen tiis wii ñoo ko bokk waaye ndokk yàlla ba ngeen ko ak ñu euh, euh, ko tuddee ci recevoir ak xel mu dal ak gëm yàlla ak bàyyee seen bopp yàlla ñu ngi à travers les micro xam naa papam nekku fi mais moom bu fi nekkoon dana gën a yaatal mais de passage tamit ñu ngi koy nuyu di ko sargal di ko wax ne ko mu mënuñu woon a def benn mouvement boo xamante ni du ñu ñàkk a jaar fii tey la suñu première sortie à part ak APES euh, wóolare googu nag moo tax ñu ñëw won leen ni de tout cœur avec vous ñu ngi ànd ak international Khoureychi Thiam mu nekk jàmbaar jàmbaaru fàkk tëdd comme Cheikh Omar Bam ni mu ko ni ñu koy faral di waxee di sant presse bi tamit di leen gërëm bu baax a baax ndax presse en ligne beeg yëpp ndax lii yëpp bu amee tey seen taxawaay la di leen wax ni RTS bu ñëwee baax na parce que suñu xaalis la bu ñëwul gis nañ leen démb gis leen tey yéen a ngi ci suñu wet te ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na ngeen dem ba raw RTS ah. raw nañ ko di waaw waaw waaw kii ñu koy sant di ko gërëm sëñ Maam Paate liñ ko yàqal ci alal sëñ Maam Paate liñ ko yàqal ci alal jéggi na dayo waaye booba ba léegi mu ngi summi mbubbam namm ay dàllam bu dee padam njaxit sax mu ngi koy sol ngir ànd ak ñun ci lii nga xamante ni tey bu fi son ko nekkoon président bu fi Diomaye nekkoon président du mën a def lu ëpp lii te alalam la ñu yàq ay millions ay millions millions mooy li ngeen gisoon Sacré-Cœur parking boobu def ay oto ñu xëy rek rajaxe ko te avertir ñu ko waxuñu ko dara jëmm ji la kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax moom tamit déplacé woon a ñëw nekkoon nag euh, kii ñu ñëw seet si nii tey muy bay naa ci biir kaso bi kon gis ngeen noonu mu demee euh, suma ma juumul euh, yaakaar naa lépp mat na ak sëñ Thierno Gueye ah Cheikh Mara Niass ana Cheikh Mara ah ma ahlan marhaban waaw waaw eh, eh, ma jàpp Cheikh Mara mu waaw waaw waaw Cheikh boo xam ne dañoo ñëw ba si fief Barthélémy Dias naam mais mais ñun ñun acte acte de acte dafa am lu ñuy tuddee patriotisme xam nga dafa am loo xamante ni c'est long terme ko teg loo xamante ni court terme la ñun fi ñu jëm du problème mu dañ koy xeex tey jot ko tey déedéet dix ans boo seetee dix ans boo seetee la ko président Ousmane Sonko ak ñoom Diomaye initié tey mu dem ba yaatoo nii dëgg ci sax dëgg jooju nag ay xeer du ko faj ay mbéj du ko faj gënoon na garaaw bi ñuy jàpp ñii bu ñu génnoon tey dëkk bi du am élection tey waaye ca prison ba mu tëdd ak jëmm yi ci la ñu muñ loo liy metti li ñuy teg ci biti ñu muña leen ko ñoom ñi ci biir xam ni bés dana ñëw te bés bi du jaas ñu ngi def lu nekk nag pour bés bi changé mais bés bi du mos a changé incha allah le 24 na ñëpp jëli seen carte balaa vingt 24 na ñëpp teel a xëdd teel faa dem incha allahu taala 18h mu fekk ñu ndogoo ji suñu kër ak ndam lu yaatu. ci ngeen sécuriser ngeen sécuriser balaa may jox sëñ Baara ngeen sécuriser vote bi gis nga kenn xam naa vote nu muy demee fii mas ma seer ñaa lay voté gis nga ku fi gagné yaa sécuriser sa vote te am na noo xamante ni bu ko demee diaspora bi rek dana àtte biir Sénégal bu diaspora bi waddee rek la ca des bu Touba waddee Ndakaaru commencé wadd génn leen ngeen jubile sécuriser seen vote su ngeen ko deful leneen mën na xew te loolu duñ ko seetaan mu xew jërë ngeen jëf suñu waaw góor gi maa ngi lay nuyu Ablaye euh, waaw góor gi Ablaye maa ngi lay nuyu bu baax xam naa ñetti baat rek parce que man ak bay na yàlla def na ñoo bokk benn bis bu ñu defeere defeere non garde à vue laa ko fekk foofu central mais ñoo fa nekkandoo woon ak euh, ku ñuy wax biram nekk ku dëkk Wakam ak yeneen ñaari boy ñooñu la Barth tuumaal kane ñoom ñoo lakk këram ñoo ko doon jéem lakk euh, paa bi moom li ko ci dugal mooy moom la doon junj naan moom moo leen dalaloon foofu këram xaw ma mais di wax rek li ma dégg fii léegi ñu ay Barth da leen a jëlal avocat yooyu loolu moo tax su ma ko waxul xam na bay na bu génnee seetaan vidéo bi du ma ko baal parce que man xam naa lépp ndax ñoo bokkoon nekk garda bi Barth dafa bëggoon a neexal émission mag may mën a nduur fay rek parce que yëngal 2021 soo ma jëndee dootu ma Dakar dootu yëngu jur boobu dakaar dafa yëngu kër kër Matar ba lakk ak yooyu mu jël ab émission ci Maïmouna Ndour fay bëgg koo justifier ci la fexe ba jàppalu ay ni daan ne ñi ma jàpp sax kenn dëkku ci dakaar mais xam nga ne yow ñetti booy yoo xam ne jàppee woo leen ak bitéelu essence jàppee woo leen ak kenn ki yéen a jàkkaarloo kër bu lakkee seen kër mook sa kër lakk sa kë këram lakkaale. nga ne ñoo doon lakk sa kër xam nga ne waxoo dëgg deuxièmement mooy ñooñu ñu ngi ci kaso bi muy bay na géey Bart jëlalu leen avocat xamul ci ñoom dara lu mu si wax bu fekkee waxu ko jëlu ko bu fekkee moo ko wax waxul dëgg parce que dégg naa ko ci télé bii mu naan booy yi génn nañ naan ñi lakkoon sama kër bàyyi nañ leen dégg nga te loolu ñooñu ñi ko ñi mu ko tuumaal bañ nekk prison ñooñu ña nga kaso ba tey di ko wax moom ci kaso bi la heure bii ci kaso bi la ko waroon a fekk parce que këram Bart am na ay caméra de surveillance léegi bi ma fa jaaree sax maa ngi koy xoolaale loolu ba xam donc boo waxee ne ay nit ñëw nañ sama kër di lakk kër ga lu mu néew ne waroon ngaa bayi police mu def euh, ay recherche ci caméra yi ñu xool ba xam li nga wax dëgg la parce que caméra yaa ngi foofu mais loolu lépp ay fen la waaye li tax ñoom ñu tëdd jakaso ba police moo la gën a xam ne ñooñu waxuñu dëgg gis nga bay na bu génnee dina ko wax biñ koy defeeree dañ ko wax ne ko dañoo jëlee Sonko fële nga mer di di manifesté wu man maa la wax loolu tey biñ koy entendre maa ngi toog bay na ne non man kenn andiwu ma fi pour loolu dañ ma andi parce que dañ baat moo ma tuumaal euh, dama doon lakk këram mu ne ko juge bi ne ko non non yow kenn procureur bindul loolu sa dossier bay na bu génnee dina leen ko wax bindul loolu sa dossier manifeste lañ la bindal. mu ne non man kër Bart lañ ma waxal mu ne ko noo manifester cela veut dire que xam nañ ne dossier boobu du dëgg bëgguñu ci avancer ñu coller leen ay manifestants mais dossier Barth boobu bu bàyyi na géey génnee dina ko waxal boppam te yàggatul tëjuñu ko parce que da doon tëj taal kër Barth parce que biñ enquêté rek xam nañ ne Barth waxul dëgg léegi nag temps boobu nag Pastef bokk élément la bokk euh, ba bañ nekkee central a jàpp daf ko miin ma na ne loolu du dëgg ni ko dañ lay topp parce que yow da nga doon manifesté wu moom ak ñoom ñëpp ñoom Paa Biram ak ñoom ñëpp loolu lañ leen loolu lañ leen tëjee parce que waxu Barth boobu xam nañ ne ngelaw la ay fen la voilà leader politique bu toll ne moom nag bu mënee nekk ci dëkk bii di génnee fetal di fetal nit ñi soo waxee di fen comme àndal wor la kooku moom mook askan wi la waaye du mook du mook ñoom bay na voilà jërëjëf ah. ah. bismillah waa moo dab leen di ah, li ñuy wax en anglais welcome si fii nga xamante ne mooy commune Mermoz Sacré-Cœur xam ne fii laa juddoo màggee fi yeroo fi donc di rafetlu liggéey bi ngeen di def yéen presse en ligne yéen presse en général te gëm naa ni tey bu lépp mu ne feeñ ci dëgg yéen am ngeen si part de responsabilité te ñu ngi koy saluer bu baax te di ñaawlu encore une fois traitement bi ngeen di subir sur le terrain que ce soit le terrain normal comme le terrain politique parce que am na benn un balance c'est-à-dire benn différence bu am par rapport ak presse extérieure bu ñëwee ni leen di traité ak yéen presse locale bi ni leen di traité rawatina nag suñu njiit bi nga xamante ne mooy le président Macky Sall lépp loo xamante ne lu am importance la bu ko waree wax du ko waxee ci xarale wu Sénégal donc gëm naa def ñoo xeeb waaye xeebal boobu moo ko jural lii ndax xeeb bu mu ñu xeeb rek na xam ne ñu nañ koo jàpp ndax mooy suñu président de la république waaye tey nag Sénégal doyal na ci moom sëkk ni mu doyalee si ñun doyal ci nguur gi ñun ñoo ko gën a yàkkamtee doyal ci moom waaye na ko teg ci yoon ci jàmm ak salaam mu dem keneen ñëw ñu defar Sénégal incha allah léegi am na bëggoon wax fii ngeen ma fekk ni fii mooy kër na Gueye te ku xam Bayna Gueye xam nañ engagement am naam bokkul Pastef directement dafa bokk ci li nga xamante ne mooy mouvement wu kerem Xrum Xax dëgg waaye nag nit dëgg ak dëggoom boobu mu nekk te ñun ñuy woote patriotisme te patriotisme sans dëggu amul sens donc loolu moo tax tey xëy na nattu bi dal ci kawam waaye nattu bi dafa dal ci kawam ci injustice boo xamante ne kii di le maire Barthélémy Diaz moo ko teg ci ndondam ci lu dul dëgg xëy na dafa bëggoon buzz rek loolu la ñuy wax en anglais bad buzz.